bëgg leen soo leen bëggee damay kontaan seen émission bu mag bi di am fii ni leen koy ah, bi nga xam ne moo lay indil actualité yu wóor moo lay indil actualité yoo ni moo lay indil nga xam ne moo wóor bi nga xam ne moo di seen émission bëgg leen tey nag ñu dalal ndaanaan buñ leen ndaanaan xel yëpp dem ci Papa Thione wala Youssou wante ndaanaan li nag ah, xel yëpp dem ci ah, Moussa Mboup moom artiste li nga xam ne moo di comédien tey ñu dalal ko fii suñu émission bëgg leen mu fas yéene bégal mbokk internet youtube Actu TV la chaîne leader comme du koy daal di waxee tey nag ndaanaan laa feggool laataa ñuy dem nag dañ koy bàyyi mu nuyu ak mbokk internet youtube Actu TV la chaîne leader Moussa tey nga nekk suñu gàddu euh, émission bég leen ñu bàyyi la nga nuyu ak mbokki téléspectateurs yi waaw bon dafa euh, ñu ngi lay béggee di la ziar di la fay nuyoo quoi di la jox sa waacu waay di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp euh, di leen béggee di leen wax ni leen seen doom moo leen di nuyu seen rak seen jarbaat seen euh, seen lépp daal seen xarit koo xamante ni daal moo ngi fi daal nekk fi xam nga nekk fi nitu ñëpp bëgg ñëpp def ñëpp ci boppam safoo leen ni ñi safoo ko ñuy bëggee maa ngi di nuyu bu baax a baax baax. Aïcha mi ngi noonu kooku mooy Moussa ñu gën ko xam ci Every si nekk euh, artiste comédien ñu doon yëngu ci wàllum TikTok nekk youtubeur tamit ci diwaanu youtube di si def ay vidéo euh, laata ñuy dem a euh, gis ngeen internet yi ki ñu invité muy Moussa nekkoon artiste li nga xam ni moo di comédien ah fii ci diwaanu Tivaouane tey moom laa dalal sama plateau fii ci Tivactu TV la chaîne leader ba ñu bàyyee ba nga nuyoo ba pare ñu bëggoon a xam ñii naan Moussa ñii naan Every Moses dëgg-dëgg kan mooy Moussa. waaw waaw Moussa dama lay waxu Souleymane Faye wa rek <laughs> kan mooy Moussa Mela yow yaay Moussa <laughs> waaw Moussa dafa doon koo xamante ni xam nga euh, moo ngi nii daal Evry Moses bi dafa doon surno boo xamante ni sama benn grand moo ko tuddee woon Badou Mbaye boobu man nag téer laa quoi atelier lañ nekkoon xam nga di dóor jàng ñaw xam nga gars yi bu nu commencé bu ñu dikkee atelier xam nga chaque jour ñuy tudd sama tur di ma woo di ma nodd sama tur sama tur Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa. xam nga mu naan every day Moussa every time Moussa loolu tax mu ne Evril Moses mu abrégé ko noonu quoi def ni def Evril Moses bi quoi foofu la jógee. loolu moo tax man ma jël Evril Moses bi am na tamit euh, sama seen Instagram am na ñoo xam te ni tamit bu ñu ko ubbee def nañ ci Mbuuba Jali. Mm-hmm. waaw sama am na sama seen Instagram boo xam te ni Mbuuba Jali lañ ci def quoi. Mm-hmm. man daal maa ngi nii rek gars yi ñoo rek ñoo ma bëgg seen bopp kenn ku ci nekk yaa ma gën a xam te def li nga xamante ni xam nga mm-hmm. noonu nga sentir ci Moussa quoi noonu la fa demee. Moussa ñu gis sa compte TikTok ou bien YouTube wala Instagram nga def Every Moses pourquoi jëloo musa mbub bi def ko sa compte li nga xam ne moo di TikTok pour nit ñi mën a xam ni yow dëgg-dëgg Moussa la. waaw waaw loolu moo tax sax xam nga ma gën a ma ma gën a fësalaat Every Moses bi ndax Moses moom boo ko déggee xam nga rek euh, boo jëlee les waxul di nga xam ne waaw Moses bi Moussa lay signifié quoi loolu moo tax ma jëlee Moussa bi ba pare mbuub laa sant mbuuba jale bi. maanaam man sama dàkkantaal sama tagg noonu la quoi noonu la commencé ay mbuuba jaleek yooyu noonu loolu moo tax ma indi boobu noonu daal ko ciy teg mais lépp rek dafa delluwaat ci ci Moussa Mboup. Hmm. en tant que artiste nga doon yëngu ci wàllu comédie Moussa Every Moses nga doon yëngu ci wàllu comédie ah, ñëpp xam la ci te foo romb rek ñu woo Moussa kaay kaay kaay kaay reetaaloo ñu nekk nit koo xamante ni jaar rek kenn du ngepp ah, lan moo la dugal ci ci li nga xam ne moo di comédie. waaw comédie doonul loo xamante nii lu ma forcer la quoi waaw dafa doon loo xamante ni lu naturel la ci man maanaam au début góobu ma ko woon sax dañ ma daan forcer ay yooyu noonu dama daan taxaw ay répétition gars yi du tourner may toog di gis ay failles yoo xamante ni wala ay traces damay damay rectifier di jéem a kii di dugal samay kàddu gars di ma accepter li may teg mm. jour ma njëkkee bokk répétition bi ma duggee gars yi bi may jox parole. bi ma bi ma utili bi ma bi ma bi ma bi ma utiliser samay paroles bopp gars yi dañu ma ñun yi ñu la jox arrêté ko jëlal say parole nga utiliser ko xam nga ma utiliser samay parole mu doon ay paroles yoo xamante ni tamit bi ma ko baxee ba pare gars yi bi ñu doon répéteel euh, nee na ma yow booy magal a deey te il fallait que du demee demeewul noonu mais dafa damaa doon koo xamante ni xam nga bon euh, luy nelaw ci yow boo ko yeewul sax am na effort bu ndaw rek booy def faw mu yee boppam xam nga loolu moo waral xam nga Moussa tamit euh, doon koo xamante ni mooy loolu quoi tamit yaa ma gën a xam noonu la fa demee. loolu moo la loolu moo la dugal ci aar mais Moussa ñu doon la gis nga yëngu ci wàllu série lu ci mel ay Lagnol production gisoon nañ la ci ci ci label boobu noonu nga doon yëngu ci wàllu série ñu jékki-jékki Moussa Pose lan moo waral loolu en tant que artiste. waaw waaw waaw loolu dëgg la maanaam Moussa doonoon na koo xamante nii doon na liggéey ci ay série waaw maa ngi woon ci Lagnol am na yeneen am na yeneen nag yeneen sketch yu ma fi tourné waat yu bari yoo xamante ni foofu laa ko tourné Lagnol waaw après après Samira bi quoi. Mm-hmm. mais man daal dama tolloon mois boo xamante ni xam nga dafa am yu bari yoo xamante ni daf ma tënkoon. Mm-hmm. mais sama coobare nag quoi. Mm-hmm. mais maanaam dafa am yu bari yoo xamante ni daf ma tënkoon ba tax na mënu ma mënu ma mënu woon boole loolu. ak yenn yi nii kowaa di tourner. mais instant bi pour l'instant nii moom macha allah quoi léegi yàlla moom sotti na lépp. ba affaire yëpp xéwale na waaw. Moussa tey nga nekk artiste comédien yaan yëpp xam na ci li nga xam ni boo di comédie ku ne xam ni Moussa bu ñëwee rek day neex ah, ah, lan ngay waaj ndax yaa ngi wax waa yaa ngi ñëwaat ak Evry Moses wala Moussa Mbouba Dialy wala waa Tivaouane ñu ngi lay xaar ci comédie parce que soxla nañ la ci parce que bu ñu xoolee diwaan Tivaouane art dafa mel ni dafay wàcc parce que gisatuñu ay boo yoo xam ne dañuy def comédie dañuy gépp wa dañuy def théâtre est-ce que pare nga pour defar ñaar yëpp pare nan pour pour pour def retour bi bon ndaxte damay dox ci town bi ay nit di ma woo. Hmm. Moussa la moo tax nga arrêté Moussa la moo tax gisatuñ la xam nga ñu ngi seetaan ba léegi nii say say say say série say sketch ñu ngi koy seetaan xam nga ñu ngi lay wër mënatuñ laa gis nit ñi di may di ma di ma di ma wax loolu lu bari quoi ak sama copain yi ma xam te ne ñoom laay àndal man yàlla def na man du ma toog koo xamante ni yàlla deful ci moom dara hmm. man képp ku may toogal xam nga. day doon koo xam ne day mel ni man damay toog di partage ak yow ñuy waxtaan kaf ree man bégee loolu laa xam mais Moussa boobu noonu nag bientôt ñu xaar ko tuuti quoi mi ngi ñëw incha allahu rabbi parce que jafe-jafe amoon ak yooyu yëpp ins nii macha allah xam nga yàlla dindi na loolu lépp bu neexee yàlla dinañ commencé waat xaar leen ko incha allah ci YouTube bi. Euh, Instagram bi ak euh, TikTok lépp incha allahu rabbi every modeste moo ngi ñëw. mbuba Jalee ngi ñëw mm-hmm. bu neexee yàlla. Mm-hmm. Moussa en tant que artiste laataa ñuy dalaat ci deuxième pàcc bi dama bëgg nga may mbokki téléspectateurs yi ñu bëgg a xam dëgg-dëgg kan mooy Moussa Mboup parce que buñ ne comédie moom ci yow lañ koy fekk baax kon Moussa dama bëgg nga may euh, la nga leen di may ci en tant que ci deuxième balaa ñuy jàll ci deuxième pàcc bi. du ma leen lu lu naturel rek. Hmm. <laughs> waaw lu naturel rek maanaam li leen di may dafa am dama ko gis quoi dama ko dund pourtant sama gaale la sama gaale la de quoi. Hmm. dama ko dund quoi sama gaale dafa am benn bon boo xamante ni mi ngi tudd Kumba Kumba Kumba la ko quoi ak maman maman moom moo ko jël mais Kumba ak maman un jour un jour un jour un jour dañoo jékki-jékki rek euh, fin du mois jot mhm. maman dagg ci salaire am dix mille mhm. te xamul Kumba xamul lu waral loolu léegi nag bon bi maman daggee ci moom dix mille Kumba xamul lu waral loolu Kumba jékki jekki ni ko ah maman li ma daan faykat manqué na mhm. lu manqué mënu ko dix ko man maa ko man maa ko man maa ko man maa ko dagg ci sa salaire mu ne ko la moo tax nga dagg ko sa salaire mu naan ko non kumba kumba kumba kumba kumba ji ma lay woo te doo ma wuyu <laughs> moom laa jëndee nen neexalee ko sama baat bu ëllëgee ma lay mën di woo quoi. <laughs> kon mi ngi noonu kooku mooy euh, Moussa ñu gën koo xam ci Every Moses ñu naan Mbouba Jali ah, moom façon tur bu ne la am. kon nag euh, boo ko mooy Moussa nekk artiste fii nga xam ne moo di ci diwaanu Tivaouane di yëngu ci li nga xam ne moo di art nee naa la boo tuddee euh, comédie boo ko ci boolewul nee naa du neex ndax Moussa ku ne xam nañ ko li muy def ci diwaanu TikTok boo ko seetaanee stress day dindi ci moom tey moom la ñu invité woon suñu plateau Tiv Acteur dañuy jàll ci li nga xam ne moo di deuxième pàcc bi Moussa ñu bëggoon a xam Moussa yaa ngi ñu lay ñu lay gis ngay yëngu ci li nga xam ne moo di tailleur ku ne xam ne tailleur tamit aar la nga bëgg ko boole ak comédie bi ñaar yooyu na la koy dundee waaw loolu méttiwul de loolu méttiwul loolu garaawul de yàqul ma dara waaw yàqalu ma dara de. Hmm. vraiment wax dëgg yàlla parce que su ma bëggee job dinaa job su ma amee loo xamante ni tey jii dinaa ko war a tourner damay dem tourner ko avec fair play parce que man du ma sonal quoi du sonal doonul loo xamante ni lu ma yanu la di ko aggraver sama bopp non mën naa toog fi ma toog sama atelier di liggéey sax di hmm. loolu méttiwul pour ma jug tourner nii hmm. même pas une heure de temps ma toogaat yeggale li may def. non loolu moom méttiwul ci man ko waa yàqalu ma dara vraiment. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. mu mm-hmm. koy gérer bu baax. kon mu ngi noonu Moussa nee na moom loolu yàqalu ko dara en tant que li nga xam ne moo di artiste ku ne xam ne nii nga nekk artiste bëgg ko booleeg leneen day différence tournage am tay fële am tay loolu jafe-jafe boobu noonu tey nga war a tourné benn ñaw ñëw Moussa nan ngay def. waaw mais loolu samay client nañ comprendre lu mel noonu waaw samay client nañ comprendre lu mel noonu parce que loolu man yaakaar naa doonul loo xamante ni luy metti la. Mm-hmm. ba pare tamit tournage doonul loo xamante ni dañuy jékki-jékki rek avisé ko mu ñëw nii ñu ni dañuy tourner non non dañ koy programmer bu nu programmer man dinaa programmer sama emploi du temps ba dina xam ne may organiser samay ñaw ba bu booba affaire du fekkante. Mm-hmm. même bu fekkee dina fekkante sax dinaa mën a waxtaan ak euh, ki may ñawal bu fekkee dina mën a comprendre. Mm-hmm. mu comprendre bu fekkee ne dafa doon loo xamante ni lu urgent ñàkk c'est nécessaire damay bàyyi bi gars yi ko. ba ma dóor samay affaire après après ñu continuer quoi. musa hmm. Moussa buñ ne aaru Tivaouane ñu bëri dañ naan aaru Tivaouane du dem fenn du puus du paas en tant que artiste nekk fi nga xam ne moo di Tivaouane di yëngu ci li nga xam ne moo di aar yan jafe-jafe ngay dund fii nga xam ne moo di ci Tivaouane ak aar. waaw dina xaw a métti na quoi. tar na trop métti na bon doon na loo xamante ni lu yéeme la tamit ci Tivaouane fii nii mu doon loo xamante ni aaru aaru aar ci côté fii nii day xaw a sooxee. mais tamit ci benn côté dañuy jógee benn allure boo xamante ne ba nga am yaakaar ni arab yi pour l'instant nii dara dootu ko mën a téye mm-hmm. mais da dem ba ci biir di gisaat muy xam nga di rës ndànk-ndànk mu doon loo xamante ni man xaw ma ñooy teggi suñu loxo par tamit calcul bi nu calcul bi gars yi def di cenc mayen ci tiif bi nu tuwaan bi nu nekk mm-hmm. xam nga xaw ma qu'est-ce qu'il y a daal ñu ciy def effort ba pare tamit jàppal bi doon na luy des mm-hmm. jàppal bi doon na luy des quoi maanaam buñ sañoon jàppal bi gën a doon loo xamante ni gars yi dañ ciy def nii surtout autorités yi nga xamante ni tey jii nii ñoo nekk ci town bi hmm. doon am na ñoo xamante ni tey jii nii am na yenn gars yi fi ñuy position yi ñuy taxawee hmm. artiste comédiens yi hmm. parce que autorités yi fi nekk artiste comédien yëpp artiste comédien ku ci soxla artiste comédien da danga koy am facilement mais pourquoi artiste comédien yi buñ soxlawee autorités yi waruñu leen a mën a am facilement facilement ah man à part à part à part à part man su ma côté euh, man man man man yebuma yebuma yebuma autorité yóbbu ma autorité mm-hmm. autorité yóbbu ma leen quoi mm-hmm. mais maanaam su ma sañoon ñu gersu artiste comédien yi xam nga bàyyi leen xel bu baax te xam ne ñoom ñi ngi leen di soxla te bu ñu soxlaa am leen kon bu leen artiste comédien yi soxlaa bala ñu leen soxla sax war nañoo mën a taxawee position boo xamante ni di leen imposer ay njàppal yoo xamante ni gars yi mm-hmm. dinañ ci nekk ndax gars yi ñu ngi ci quoi ñu jàppale leen s'il te plaît jàppale artiste comédien yi xam nga yokku leen doole bañ leen mën di dégg quoi ndax su boobaa seen ndam lay doon ndax ñoom ñoo fi nekkal ci waal Moussa ñu gisoon la ci benn série série boo xamante ni euh, court métrage bi daw na bañ daw premier épisode trois euh, ñu gis sëriñ bi defoon ful ñu jékki-jékki pause euh, lépp nëxasalaat lépp bàyyi waa Tivaouane gisoo dara gisoo benn série boo xam ne mi ngi lii waa Tivaouane ñoo ko bind ma lay laaj ba xam série boobu noonu ñuy bind scénario bi ñoo dul bind premier épisode bu jaarul yoon wala dañ dul bind euh, saison boo xamante du àgg parce que da gis ngeen def teaser rek teaser bi génn tiaan yëpp apprécier ñu jékki-jékki ngeen dawal premier épisode deux épisode après ngeen def ñu daal ñu daal ci deuxième bi yéen nga xam ne nekk artiste li nga xam ne moo di Tivaouane buñ gisee seen teaser premier épisode trois après ngeen def fin de saison série bi sax du am sens wala bindikat yi ñoo mënul bind wala yéen yéen a boolewul wala buñ tournage ba sa digg ba da ngeen di bàyyi tournage bi arrêté wala moyen moo leen mayul loolu. waaw loolu noonu nag dafa doon loo xamante ni man xaw naa ci am jaaxal quoi hmm. ndax loolu sept sept sept épisode la sax set la hmm. sept la yem hmm. man maa tourné première bi ak septième épisode bi mais doon na lu ma xamante ni tey jii nii man mi tamit lu ma jaaxal la parce que parce que man damay laajte ci loolu. maanaam scénario bi ak ñu gérer série bi damay ñëw di waxtaan ak ñoom ci loolu hmm. lan moo tax lii lan moo tax affaire bi jékki jekk rek mënatu la dem consort mais du ma ci duñ ma ci wax lu leer ma ci wax lu leer du ma ci am lu leer ko loolu moo tax ba pare tamit man damaa doon artiste boo xam te ni nekkuma nekkuma artiste kenn man loolu la man loolu la man position boobu laa taxawee nekkuma artiste kenn nekkuma ci benn euh, turubu kenn labelu kenn nekkuma ci labelu kenn man seul dan may soxla woo ma dañuy def seen scénario soxla woo ma ni ma lii lañ bëgg nga joué ko ma joué ko ci. ay dégg macha allah nag yàlla defal ma ci loo xamante ni lépp loo xamante ni bëgg nañ ma joué ko yàlla dina ma defal ma am mature boobu. ma ko léegi buñ ma joué loo damay joué xam nga am joué lañ am joué joué lañ ci am lii mooy sorul lii lii lii xam nga amoo dara amoo amoo yoon ci jàmbur mais am nga droit ñu la joué lii. xam nga boo ko mënee joué nga leen carrément mën naa koo joué ci kaw ngeen juboo quoi mën naa koo joué nga joué ko mu jeex. mais loolu na loolu doon na loo xamante ni tamit lu ma jaaxal la parce que laajte naa ko une fois heure ma laajtee du ma ci wax lu leer après mujj gi xam nga doo fi ne di jaxar bi nit ki ba mu sës da ngay xam fi ngay yem ak moom ko waaye doo ko mën a jeex ba mu yaa ma gën a xam. Moussa ñu gis loolu boo leen ko laajee duñ la mën a leeral li nga xam ne mooy li nekk ban faay moo nekk ci loolu en tant que artiste ñu gis aar mi ngi dox Thiès art mi ngi dox ci diwaanu Ngaye aar mi ngi dox diwaanu Dakar fa ma fa nga xam ne foofu la daj dëpp gi nekkee pourquoi Moussa Mboup mënul génn dem foofu noonu def ji li nga xam ne moo di art nit ñi mën ko xam parce que gis nañ la am nga talent bi y a si li ngay def ah boo génnee ñëppay kontaan boo defee tamit ñëppay kontaan pourquoi Moussa Mboup mënul génn def li nga xam ne moo di art ci diwaan yi nga xam ni fa la aar gën a fësee fa la art fa lañ ko gën a bëggee waaw loolu dafa doon noo xamante nii tamit euh, dëgg la quoi parce que commencé woon na def xam nga nit ki li ñu naan bay ci sa wewu tànk mhm. balaa ngaa génn bay toj feneen foo xamante ni dëggoo fa mhm. fi nga dëkk dañ xam ba pare d'accord donte fi ma dëkk xam nañ ma xam nañu ma bu baax xam nañ maay kan loolu defoon naa effort yooyu noonu ba génn ba ba ba tourné fi benn buuba dëmbaaw mhm. sama vidéo buuba dëmbaaw boobu ma ko traduire ma demee fi buuba dëmbaaw dafee vidéo falaa defee vidéo tourné ko vidéo bi def fa xam nga commencé def di éclater di dem xam nga fi ñuy commencé di replier ko pour jëliwaat alir pour yaa ma gën a xam pour euh, nekk ci bagage yi corona bi ci la dugg après nag bi corona bi duggee xam nga nit ñi jaaxle bopp yu tëju boo waree xalaat sax doo xalaat génnatuma dematuma fenn mooy loolu bopp yëpp équipé xam nga tamit nit ñi mënuñoo nekk ci naqar ñii di dee ngay dégg kaa lu ne ngay nekk fii naa da ngay comédie di naaw fu ne nga aw fa après dañu xam mujjee rétrograde bi ñu rétrograde daal di loo liw affaire yi sedd ñu bàyyaay mhm. xam nga bàyyaay rek daal di toog canaliser wu quoi eh. waaw dëgg neexul eh. dafay ci lañ refil yow daal di toog rek jàpp suñu self eh. léegi après bi loolu jeexee ci moment boobu diggante corona bi nag noonu après xam nga rek bi ma dalloo noonu ci laa muj mujjee marié xam nga ma marié nag xam nga doon seet bu bees yaa ko gën a xam ah, kon Moussa takk nga jabar na takk naa soxna takk naa soxna deux mille deux mille vingt je pense waaw deux mille vingt le le le dix neuf avril le dix neuf avril deux mille vingt waaw ci soxna quoi ci laa takk. nga nekk nga nekk artiste am jabar ak boole koog li nga xam ne mooy tournage noo koy dundee ak sa jabar bi seetaan say vidéo. waaw mais man sama jabar dama sama jabar dafa fekk may dafa fekk ma neex. Ah. waaw sama dafa fekk ma neex. Hmm. waaw dafa fekk ma ma doon artiste comédien mu bëgg ma ci loolu ba léegi dama koy bëggal. Ah. waaw may nekk si néeg bi moom bu nuy waxtaan day taay ba yuuxu bu ko defee yaayam commencé waaw mais Maguette du xew foofu wala mun naa dégg leen ñooñu xam nga loolu dafa neex tamit. Uh-huh. sama soxna loolu amul problème sama soxna benn vidéo rek moo ko dérangé. Mm. te boobu dafa doonoon gan ci moom quoi. mooy du buuba dëmbaaw bi. Uh-huh. sama buuba dëmbaaw bi mooy son bi. boobu moom dafa xawoon a dérangé parce que boobu moom dafa loolu dafa nekkoon gan ci moom. Uh-huh. daf ko bett daf ko jëlee kaw. Mm-hmm. vidéo boobu nag dafa def foofu dafa lancé wu trop. Mm-hmm. oui macha allah xam nga. mu bett ko trop après mu métti ko ñu waxtaan après mu supporter loolu noonu amatul benn muskil waaw après ma continuer di tourner samay vidéo mu koy teg AS di kontaan di apprécier su ma dugg ma defaree vidéo sax balaa ma koo dugal dama koy tegal bu seetaanee ree ba kontaan ma koy doog a publier keneen di ko doog a seetaan oui loolu moom def naa ko quoi. loolu am na solo Moussa ñu bëggoon a xam en tant que artiste ban euh, lan moo la gën a neex ci li nga xam ne moo di ci li nga xam ne moo di aar. li ma ci neex. li ma ci neex bari na bariwul aar li ma ci neex bari na bariwul euh, li ma gën a neex ci aar bëgg naa aar boo xamante ni aar bu am bu am bu am bu am qualité mm-hmm. aar boo xam ni dafay am qualité quoi ñi koy ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi exploité loolu valoriser seen bopp mm-hmm. parce que ñun dañoo doon ñoo xamante ni ñun duñu bojo bojo quoi man boo ma gisee ci mbedd may dox di dem su ma sentirul toog waxtaan mu neex mm-hmm. nit mënu ma waxtaan loo mu neex parce que man maa moom sama bopp artiste noonu la war a mel artiste du non fu la fekk rek fu la fëkk romb rek fëkk la yóbbu ko ni da nga naan dégg dara du la jàqar bi waaw ni da nga war a fees delloo rawatina artiste artiste nga artiste comédien nga. Mm-hmm. yaa ngi dégg waroo doon koo xamante ni mbilim lacc ñu fob fob la yóbbu foo tourné ŋaññi ŋaññi nit ñi ree ngay si njaay boobu rëy mm-hmm. yooyu amul solo yaa ngi a neex artiste bi digne artiste bi am personnalité artiste xam nga xam boppam monsieur dégg nga ma artiste bi nga xamante ni mooy artiste comédien ak artiste yëpp nag ñoo ci bokk yem artiste bu mu mënti doon xam nga ne yow tey jii nii nit doo dox ci mbedd yi nit ñi dala kar kaay defal ma émission wala kaay introsé ma ngay doo ko def ñun noonu lañu war a mel parce que am na loo xamante ni tey jii nii dañ ñoo war a fekk suñu milieu ak fu ko war a defee ñu defee ko fa noonu la fa demee loolu mooy yoon loolu moo doon li nga xamante ni xam nga maanaam mooy mooy mooy mooy quoi man loolu daal doon na li nga xamante tey jii neex na ma ci artiste mais artiste boo xamante ni mooy loolu. moom loolu moom j'aime pas quoi. Moussa li nga xam ne moo di artiste nekk youtubeur si Tivaouane Tivaouane nekk tiktokeur tamit en même temps si Tivaouane ne ñoo nekk fii ci Tivaouane Tivaouane di yëngu ci li nga xam ne moo li nga xam ne moo art parce que gis nañ yenn genre vidéo yoo xamante ni lii day dëppoo li nga xam ne moo di art art santaanewul loolu fii ci Tivaouane lan nga leen di conseillé ak boo leen di conseillé ci art lan nga leen di conseillé waaw waaw loolu rek tey suba doon naa ci waxtaan loolu tey suba rek doon naa ci waxtaan quoi parce que aar dafa doon loo xamante ni pour l'instant nii day bëgg a sooxe waxuma la Tivaouane mais day bëgg a sooxe partout dans le monde. oui ndaxte maanaam maa ngi maa ngi maa ngi soupçonné loo xamante ni tey jii nii euh, artistes yi ñu ngi koy def xaw ma nag day doon lu wëy xaw ma day doon loo xamante ne lu ñuy arrêté la. xaw ma man seytaane dina ma mëni ba ëllëg ma nekk ci loolu. xam nga wala ma xaw a jege loolu wala may def leneen daal loo xamante ni aar laaju ko. mais su ma sañoon ñu xoolaat position yi ñuy taxawee ci aar ndaxte gars yi ñu ngi ñi ngi doxal loo xamante ni bu ñuy def bu ñuy comédie fekk saaga wuñu wala ñu dugal benn mot boo xamante ni day day yéeme pour ñoom neexunu quoi pour ñoom dajj wuñu pour ñoom li ñuy joxe safu leen parce que ciy dégg ay terme ay xeeti wax yoo xamante ni naa ngi suul xam nga yow yow yow yow da nga koy rus a déglu sax yow en tant que artiste ndaxte maanaam nit ki la artiste la am na talent mën na mën na joxe bon exemple ndaxte yow dañ lay seetaan rawatina artiste comédien dañ koy seetaan artiste comédien dafa war di joxe idée yu baax mm. bu demee bay comédie day comédie comédie bu naturel mais waroo nekk fii di saaka wala ngay teg ci chemin boo xamante ni tey jii nii yi développé ay paroles yoo xamante ni xale waru koo déglu mm. te maanaam fii xale lu mu ndaw ndaw ndaw l'âge de 12 ans jëm kaw boo yëpp dañuy yor téléphone mm. te ñooñu xam nga rek mature gunu quoi da nga leen war a def seen bopp loo xamante ni xam nga dañ koy déglu mu leen di amal njariñ ëllëg loolu moo solo. gars yi nañ bàyyi xel loolu doonu nañ bàyyi xel loolu lool laa amoon lu may wax ci loolu quoi ñu bàyyi xel loolu gën a rafetaatal kàddu yi xam li ñuy wax xam li nii xel yi ki xam te ni ates la osé na bay def loo xamante ne tey jii nit ñi ñu ngi lay bëggee del tekki taabal ju naturel quoi man loolu laa gëm ayca mi ngi noonu ñu ngi signalé ni temps bi jeex na Evry Moses laataa ñuy dugg laataa ñuy tàggatoo ku ne xam ne ni bég leen la ñu wax ah, da ngay bégal mbokk téléspectateurs yu seetaan TIV Actu TV parce que ñoom audi ñoom ñuy seetaan moom faaw nga bégal leen parce que ñoom ñooy yàq seen connexion di seetaan li nga xam ne moo di bég leen émission bu mag bi di am fii ci TIV Actu la leader seen bi lay jox actualité yu wóor ci bitim réew ak Sénégal mu nee boo bëggee am lu leer da seetaan li nga xam ne moo di TIV Actu la chaîne leader pour nga mën a jot li nga xam ne mooy vidéo yi ñuy dugal Moussa Euh, laataa ñuy tàggatoo dama bëgg nga bëggal mbokki téléspectateur ak Tivactu TV tey lan nga leen mën a may ci lu nga xam ne mooy lu neex. waaw non li neex fii nii bari na yow li neex lépp xam ko <laughs> maanaam li neex yow yaa koy bëgg. yow yaay bëgg li neex teg li neex maa yow xamante nan. non non xamante nan déglu ma. non yow fii day kara ñolle man sama soñoon temps bi nañ ci yokkaat loo xamante ni tey jii nii luy sapaajo li lay doon waaw. ndaxte affaire dañ ko war a mariner. waaw fii dañ ko war a mariner ba mu ba mu ba mu ba wu. waaw ndax commencé gu ma woon de man dama doon kii nii de. da nga doon nuyoo barke Baye Diagne Matt dama doon nuyoo nii wii ma tàmbalee gu ma. billaay ndax damaa bëggoon mu sappa joli. léegi may naa la cinq waaw avec lactagone. non man it eh, damaa bett damaa jëlee kaw <laughs> non sérieux da nga ma bett ndax fii dafa doonoon loo xamante nii dafa waroon a tàmbalaay saa béy. waaw dafa waroon a karañole parce que Moodu dafa nekk ci école bi. di jàng. Moodu jàng na ba année bi di waaj a jeex Moodu jàng na huit mois mu am Moodu musul yëkkati loxoom ni muse mm-hmm. non mu doon lu yéeme benn jour fin fin fin d'année école bi rek mm-hmm. Moodu jekki-jekki rek yëkkati loxo daa ni muse muse muse muse bi ne attends attends attends attends attends gaa yëpp taxaw mu ni non Moodu moo yëkkati loxo tàccu leen Moodu applaudissez Moodu rek gaa yi tàccu Moodu mm-hmm. non Moodu jàng na ba école di waaj a tëj Moodu musul yëkkati loxo mi ngi doo ko loxo tey monsieur moo posé question boobu de daal di yëkkati deux barres de craie jox Modou ni ko Modou mu ne maa mu ne ko tenee maa la ko may Modou jël mu encouragé waat Modou tàcc ko ni ko non nii la il faut débrouiller boo nekkee ak say morom da góor góorgóorlu euh. nii la xam nga kontaan ci Modou après daan ni daan voilà aca Modou pour Modou wax quoi hmm. ni ko aca Modou waxal rek Modou jog ne ko àndoo gaa de mose hmm. mu ne ko ah li nga wax de xaw ma ci dara dara dara dara dara waaye en tout cas ba Badiane mi yàq na kalaas bi de day na fi yëpp damaa man ta nag. <laughs> ayca damaa mënta nuyu nag moo tax ma la koy wax. waaw <laughs> ah, kooku gis ngeen kooku ko ko cinq minutes ci temps bi parce que faaw nga bëggal mbokk téléspectateur waaw ngeen non est bi yaa moom temps laata ñu tàgg. moom sama temps la non comme ma la ko waxee léegi rek ndaxte nag bu yàlla nattooy dóor ba mu deeta natt ba jeexul dara ba tabara lay doon. Mm-hmm. waaw ndaxte kuy wërti wëlis ni di la fay bu sa xaju tool réeree nga am loddoy ndax ni nga wëlis sa kenn du la fay mm-hmm. waaw man nag xew xewle waaw sama xaju tool moo réer mm-hmm. damay wëlis tey ba ŋaang mm-hmm. waaw te kenn du ma fay quoi waaw loolu moo doonoon li nga xamante ni euh, mooy yoon quoi waaw non eh loolu pareeguñ ci incha allah xoolal idée yi day ñëw ñuy gën a yaatal. Uh-huh. affaire yi gën di neex. Uh-huh. incha allahu rabbi. mais Moussa xam nga yow yow boo foo fekk da nga may daaj tey daa mel dama la bett xaw ma wala. ñoo naaw affaire parce que dama bëgg ñu waxtaan nga nga yor ma Moussa. non dama lay yor. waaw dama bëgg nga yow man dama lay yor. yor ma non dama lay yor. dama lay yor yow sama nit nga <laughs> bilaay Moussa Moussa Moussa loolu du ma ko nangu parce que loolu gars yi téléspectateurs yi. diim ak non xam nga ne yow dama lay yor. waaw yoon yemul ci benn incha ah. ah. la yor ba nga gën a kontaan incha allah rabi. kon bi gën a gën a ñëw. a ñëw ñu gën a nekk ci liggéey bi ngi nekkoon ci corona bi. waaw noonu la fa demee bi moom ma tee ba léegi bàyyeeguma noonu la fa demee est-ce que kaawuma nii <laughs> ayca bu ngi noonu dañuy dem dañuy dañuy dañuy dañuy dem nag daal di tàggatoo bàyyi Moussa Mboup mu daal di tàggatoo ak beneen yoon nee moom beneen yoon ak beneen beneen émission xalaat yi dina mën a ñëw pour mu daaj ji mbokki téléspectateur YouTube Actu TV la chaîne leader dañ koy bàyyi mu tàggatoo après man ma ñëw daal di def sama tàggatoo Moussa ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk internet YouTube Actu TV la chaîne leader. waaw maa ngi nuyuwaat ñëpp ah di leen bëggee di bëggee di bëggee chaîne bi télé bi ñu nekk nii di leen bëggee di bëggee gars yi TV bon di bëggee du di bëggee tafa xam nga di bëggee gaa yëpp quoi di leen ñaanal yàlla na yàlla yokk mbiri xam nga ba mu gën a yéeme ñu leen di dégg bu kawe seen njortu xam nga di bëggee waa ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu sama soxna di ko bëggee ménga góor a dégg Fambaye Diatta maa ngi lay bëggee di leen nuyu maa ngi lay loof waaw maa ngi koy loof de sama madam maa ngi koy loof di nuyu sama taw bu jigéen bi nag Fatou Mata Zahra Codé Mboup maa ngi koy bëggee bu baax ah. sama doom jigéen jooju waaw mooy sama taaw am na doom bu jigéen. ah Moussa loolu dañu ci biir waxtaan wi. non loolu loolu mais ma xool sama doom bi mu ay ñu ngi jël ay deux mille vingt et un bi rek. oui nëbbu ma la ko nëbbu ma la de. waaw waaw waaw non am na artistes bari bëri yu ma raw nag damaa doon koo xamante ni mooy loolu rek am na ñu ma raw am na ñoo xamante ni ñoo ma raw fuuf eh. man dama ci cent franc billaahi. Mm-hmm. maa ngi koy nuyu di bëgg sama yaay. Mm-hmm. di bëgg sama yaay umu xayri mbaay. di bëgg sama papa sama mag yi ñoom ndiku anta mm-hmm. bëgg ñëpp kan di nuyu jaar ñëpp maa leen di bëggee bu baax a baax a baax ak Demba sama ginnaaw tool ak Kalambay <laughs> ayca mi ngi noonu ñu bëggee yi nekk Tivaouane ku ci mel ni Habib Mbaw Ablaye Thiam Cumbux ah ñu leen di bëggee bu baax ay Kouthia ñoom neex ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax ci ah, di leen nuyu di nuyu képp koo xam ne artiste nga Babacar Fadera duñ ko bàyyi ah, Cheikh Koumba ah, kooku kooku dañ koy dalal suñu plateau kooku faaw faaw mu ñëw suñu plateau parce que kooku dégg naa ku neex la Cheikh Koumba ak ak Mor Endo Mor Endo Mor Endo moom tamit dina dinañ ko dalal Balla ak Tax <laughs> ñoom ñëpp dinañ leen leen yi ngi seetaan li nga xam ne moo Tivactu TV fii la chaîne leader di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi doon bàyyi xel chaîne bi di la wax abonnel te bés collectif notification a jot vidéo yu neexi information yu leer ah bi Pape baax directeur programme maa di sama caméraman di ko jaajëfal baax seen di jërëjëf Buzz la woon fii ci Tivactu TV la chaîne leader di leen jox di daje incha allah ak beneen invité sur Tivactu TV la di leader ciao merci